jëf mbokk yi ñooñu ci kaw tribune ba léegi mais ki ñu toogal muy père Sidi Diakhaté promoteur de la capitale du rail tey mu ñëw li nga xam ne mooy journée Baye Samb production ñëw ci làmb bi père Sidi nuyu nañ la. waaw Kara maa ngi lay bay di la gërëm di la sant ci sa teewaay yow fii ci làmb ji daal waaw. tey nga ñëw ci journée bu am solo journée Baye Samb production làmb ji noo ko gisee. Euh, di félicité bu baax Baye Samb parce que làmb dafa metti te tey jii nii làmb ju demee nii ñun ñëpp kontaan nañ ci parce que lii rek lañuy ñaan ñaan suñu sañoon xale yi chaque fois bu ñu organiser rek dafay am réussite d'autant plus que moom suma jarbaat la suma xarit la donc ñu bokk quartier buñ dëkk loolu moo waral tey jii bu réussite bi amee waa Thiès yëpp ñoo ko bokk te kon maa ngi félicité Baye Samb bu baax daal kontaan naa ci daal. nga jëm ci bis am solo le 4G première édition ministère ki nga xam ne mooy Bamba Fall di maire de la Médina nga tuude ko combat bu rëy dox ci diggante Laay Gote ak Laay Pythagore doon combat boo xam ne bari na ñoo xam ne ñu ngi ko doon xëccoo. waaw li may njëkk a wax mooy. di félicité ki nga xam ne mooy monsieur le ministre Yankhoba Diattara ndax làmb ji dama koo jëloon pour defoon ko bisam sax d'ailleurs bi ñu waxtaanee nag ba d'accord ci kàddu ma ak moom ñu ni nañ ko dàq tuuti ba boori mois de juillet ci loolu nag pour bañ a bàyyi nii comme joxoon naa mbër mbëri avance pare waxtaan naa ak ministre bi bañ d'accord ci kàddu ba war a dàq làmb yooyu looloo waral ma dem jëliwaat Bamba Fall pour def ko encore parrain ndax moo waroon moom moo nekkoon parrain wu euh, mois de juillet bi Bamba nekk suma xarit donc vraiment loolu moo waral comme décidé woon naa pour tëgal ko làmb ci ko seete ni ko ah man kat dama bëgg a def sa làmb ji mois de juin ma sédd amul benn problème parce que ku nekk xam na ne Bamba doomu Thiès la parce que ay waajuram aussi muy muy papaam ñu ngi ko denc fii ci kër maam alaaji moom mu jànge fii Thiès école Jaxaaw donc loolu moo waral léeg-léeg bu may tëgg làmb Bamba di ci ñëw donc ministre Bamba fal maire de la Médina laay defal première édition drapeau di diggante laay goote ak laay Pitagore après bu ñu paree aussi cere càq war a ak Mor Sarr am nañ ci combat yu mag a mag d'ailleurs boo xoolee nii tey ci journal bi nii moom seen combat bi moo nekk nii waaw ah, laay gootee ngi nii donc ki nga xam ne moom mooy laay Pitagore mi ngi nii donc bés boobu le 4 juin lay doon dimanche 4 juin bu ci yàlla àndee buñ ci jógee nag vraiment aussi dinañ jamaat dinañ tëggaat mois de juillet tëgg aussi euh, mois d'août mois de juin nag bu ci yàlla àndee bëgg nañ def nag drapeau Yankoba ci vraiment daal tey ji daal ñun ñëpp kontaan nañu ñu ngi wax nag làmb ji maa ngi gërëm au départ euh, euh, ki nga xam ne mooy Momadou Seck du président regroupement des tailleurs di gërëm waa télévision bi RTT di la gërëm yow Kara ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy def di la wax ne nag bés booba pour tour 1500 la damay bañ nit dem jënd billet pour tour ba pare di wax damay joxawaat ay téeméer pour jënd billet pour toog tribune 2000 francs bi fu tribune bi peese aussi garanti rutuma kenn place ñi njëkk a ñëw daal te jënd billet 2000 dinañ toog keneen koo xam ne aussi 2000 nga jëndoon tribune bi peese da taxaw bu la neexee na nga jënd annexe loge parce que mooy beneen côté trône bi à droite fa la ñuy teg ay chaise loolu mooy annexe loge bi ñu koy jaayee 5000 loge officielle bi ñu jaayee ko 10 000 kon maa ngi wax population bi yëpp pour ñu ñëw pour fekk si lamb jooju di gërëm di sant suñu xarit yi nga xam ni ñoo ñuy jàppale guddi ak bëccëg muy waa Sidi Diakhaté production bu baax a baax a baax daal maa nga leen gërëm di sant